bàyyi woon naa ay léeb ak yooyu yëpp sax wax dëgg yàlla waaye jamono ji moo ko laaj fi ne bëgg nit ñi rek di bég di ree seen xel mën a fàtte feebar bi nga xam ne moom dal suñ kaw te yàlla jëlee ko ci nu mu gën a gaawee moom ba won naa ko sax waaye faaw nga di ko def pour nit ñi di bëggal nit ñi ñu man di ree seen xel di xaw a fàtte feebar bi lu bon bon kii nag moom saan benn sëriñ la woon bu ànd ak taalibeem booba oto amagul ay fas fas moo am sëñ bi ànd ak ngóor si ñuy war fas yu di daw di daw daw ci bi ak na ko moo du tuur ndox waay yeesal njàpp ngóor si daal di jël fas yu yeew ci génn sëng sëñ bi wàcc ci wékk garaam bi ci sëng gi ndox yeesal njàpp def ko ñu dem nga dox bala ñoo naaj wee dab waay ngóor si jël daw daw ba yàgg rek ndek bi mu bi mu wékkee garaam bi jaan dugg na ci poos jaan ji jékki-jékki génn ci poos bi ni ko mu ne ko Modou mu ne ko waaw ah, mu ne ko xool ñu nguur si xool ko daal ne ko a ah, waaye sëñ bi lii mu ne ko waay luy sëñ bi lii mu ne ko ay sëñ bi lii lu ma ci man mu ne ko waay lare ñu nga naan lu ma ci man lare ñu laa wax rek mu lare leen aw yat jër sëñ ba dali fële jandi anamu mu ne ko deena de mu ne ko sàllaaw doon seera de ndax deseetuma ay bañ mu ne ko doon sore ndax deseetuma ay bañ de <laughs>